قطعين أفيش السبت السبت Scottish Anglers yàlla bum taw tawee de muy xay foo wax ne fay taw ah mu ne du taw allo guys man de muy dem puus yoo pare boole ko aadi bi nga xam ne fay eh, kot kawaram bi moom laay lijjanti ji nii aadi di kot kawaram gi ma nit may puus moom laay lijjanti ji nii jàmm ngeen fanaan ma dellu xaar si xoor mi tey léegi tey mu tàmbalee xiif nag léegi benn waxtu jot mbaa xiifu leen njaayeen yi bugg a lekk yi allo salaamaaleykum salaamaaleykum li ngeen di bind moom ami namm naa la man <laughs> maa ngi ni la allo asalaamaaleykum di poosi yére fangalaw xaw dee ngeen nga leen leen te asamaan saa ngi xiin de handa fay koti kawrangi téléphone bi du mu ma jël caméra bi jékkee-jékkee teg ko si kanamam te laaju ma ko loolu rek la bañ gune bitim réew fa ñuy xam human right dañu ne di jaay human right <laughs> aade ngay reesa <laughs> ah, aadi boo magee woon Afrique ba jël sa human right bi yëpp siis ko di la dóor ba ngay waaja deen konoon nooy de aka di la toroxal so guys aadi kawaram gi fii fa sax gis ngeen ko moom lay dem ñu dog ko di nangu ma dog ko te man mën naa ko dog du nangu ko may xeeb léegi rasta yi xamee xoon nag moo tax doo ko gis bu baax rasta yi fa wàccoon ni hiit ko fi ne rasta yi fa ko dindi suma doom la kay yéen ñooy foontoo yow su leen aadi jàppee ngeen ko fukki at ak ñeent rek la xam sax ma ko gudd allah dafa bugg a nekk si ami bi su nekkee si ami bi ba ñëw dóor ñu may saaga yëpp tout da ngeen xam kaawoo di làqu si gannaaw caméra di saaga day yéenoo bu ko bugg a dugg nii comme da jéggal leen ma si mbedd mi laa ne gisoo ko maa ne di jël nit si mbedd mi tax muy dox ndànk aadi mu ne ko mu nga wër ma suma saag bi ndax bu xamee jabar nga wër ko saag gisoo ko suma saag bi xamee bagage yi may puus moom la ma aadi nga wër ta mas nga saag nag aadi mas nga maa nga wër saag ndax bi mooy first time tey nga wër ma saag bi saagi jigéen boobu first time de mu ne <laughs> koy ngëbee ba ko poñe woon nii poñe ngëbee kaay ma ma ne ko soo amee jabar di ko ngëbal saak nag kaay ma jàngale ni ñuy ngëbee saak waaw góor gu baax su àndee jabaram ba koy ngëbal saak waaye góor gu xam ne fay rëy rëylu te bu guddee mu summeeku subhanallah xëy man maa xoor nii de taxaan ak aadi repp na aadee ngay waxu dem li mu waxu romb waxi ñàkk fayda rek la bañ ah góori askan wi noonu la ñuy def de jaay fu laa mu jigéen nit ku ñuul bële kan la aari nii la dage daggee taxawal ah soo àndee jabar doo ko ngëbal saak doo ko def daal di ko seetaan jabar jooy sonn loolu ci jikkoy góor gu baax loolu du ko góor gu baax fay ngëb saak moos ah woy mburu yaa ngi xeeñ aari fa ñuy lakk mburu gis nga xet gi mburu mu xees peq a ngi xeeñ woy lii xàq la fii lakkeekaay mburu la woy xet ak mburu gaa ngi may xëy subhanallah tamaa ngi xoor niñ waxu romb fii fii seytaane la maasàllaa yàlla na xawma lan di si baax xawma lan jërëjëf na yàlla nangu ñaan jërëjëf lu ñaan ku ñaan lu baax ku ne nañ ko bokk boole ku ñaan lu baax lu baax yàlla boole ñu ko ñu séddoo ko may waaxu fi ne de si waaxu laa ne yëgu leen dafa xaw a sedd aadi nañ nañ jàllee na le xaw a sedd suma daal yi may ñaan dafa xam yéen ko ko doon laajte benn jigéeni Gambien daal yéen nii fay mel ni solo dara senegal lañ koy defaree ta der la ñaar fukki paaw nag juróom rek nga sol ko ba abada ay façon yi façon laa si am danaa leen ko firmul ngeen gis ko ñett rek a ci des nag bëriwut ci yi yu góor yi ñaar xaw ma ñett déedéet waaw yi tam ñaar xaw benn bu ne juróom benn peer laa si amoon bëriwut ma ko doon test rek seet su ngeen ko bëggee ma indi haat moo incha waaye fa xoyof ta neex daal li ñuy defaree senegal nii seen i waroon fañ mën a liggéey allo salaam allo caméra bi de bu ko ko bëgg a ëlbati waaye su ma ko ëlbati du ngeen mën a gisu baax fa toj caméra bi si gannaaw fa toj nay xaw ni aadi ba léegi nag topp na la aadi yëgoo bu ñu neexee ñu xaw nii bu ñu neexee ñu xaw nii fële na le day xaw noonu moo gën koof nii ba pare taalal wala caa ngi koof nii taalal xaw mu ngi sedd ngi sedd ba mel ni frigo buñ jaale subhanallah lay lay la caméra bi fa toj moo tax taxawal ma ëlbati ko ngeen gis ma maa ngi ni la mbaa def leen dara fa sedde mhm. fa sedde ba xay dal ko mën ngeen ma laaj lu ngeen may laaj ku def boppam nit bu ma laajee lu ma mën a xëy ma xëy ko waaw naa leen ko nag ko xane fay laajte leen warta laajte ka waane ka dem dayoo ka mën a defante ka xame jikko xaj subhanallah kooka du ma ko xëyu waaw wax naa leen ko nag def leen seen bopp nit woy fa seede ona bakkan yi lifin ban dëkk I love you so much jërëjëf dëkk bi ma ne maa ngi fii Scotland laa ne Scotland laa ne yu baax lañ defañ lay gis di ree tubaab yu baax yi fii bu la gisee nii la ñuy def smile la ne la hello tubaab yu bon yi nag ñoo lay gis mer la xool ba di ñibbil bu <laughs> ma xenoo bu ma xenoo ci bi tubaab fa ñuy mer ba tubaab fa ñuy ree kontaan naan ah yow de jàmbaar nga yow loo ma ne lii tubaab yu bon yi nag mer ba këj fa ñu xam ni africain dëgg nga suñ jiw bi la bañ suñ jiw africain bi rek la ñuy ragal yàlla buñ la gis nga ànd ak sa doom ànd ak sa jëkkër fa ñuy mer ba yaag doom jéeg jëkkër ji ñuy xalaande sa doom yi fa ñuy mag do dara nit ku ñuul ba ànd ak doomam moo jëkkëram la tubaab yu bañ tubaab yu bon yi loolu la bañ de seen xol bay xañ-xañ yi ñuy xalaat ëllëg ñaar fukki at ci kanam luy xew nga di leen seetaan ñu xañ-xañ yi ba dee tubaab yi léegi may ree waram oto yooyu seen ma woon aat ma yi foog ne nga tubaab yi suñu mag sewee def ma yuy kaw kaw yi ak xam suma téléphone bi nga xenoo ka def lu ne fa ñuy wax ne man léegi laay ñëw fa ñu fa ne léegi laay si dëkk moo tax ma kontaan wala dara <laughs> barki yàlla nga leen di gis ñenn ñi ni ñuy kontaanee di ree di ma ree ñenn ñi ni ñu leen meree <laughs> te fekk yàgg naa fi de man la neex ma kaw kaw rek faale huma dëkk buñ jaale bi le ami <laughs> yow xaw ma lan dangaa baax oh ji dangaa baax oyof waaw waaw nit ñi fañ foog ne maa rëy wala maa xamante di ni may waxee wat du ma jël nonsense waaye man kuy wàcce sa bopp maay sa maam waaye loolu tax ma jël nonsense di jaay féeg baax féeg baax yeeg féeg féeg yi askan wi def loolu laa sonn yu moo tax mel nii ba is na like nekku ne lu nekk rek ma defante yi noo like may dem ëllëg toog si biir nit ñi kilifa yi nekk ma wala nangam ma naan noonu dafa des lan la ba du ma nekk di all time ñàkk we condemn everything all the time. <laughs> it's not like noonu laa <laughs> mel but sama vidéo yi moom oh god dama miin la su ma nekkee sama vidéo dama miin dama miin su ma ñëwee yéen ñi damay wax ne ok su ma ñëwee si vidéo yi tey du wax leen nii du ma wax lii du ma wax la parce que ñooñu may mere waaye gi nga may ñëw ba taxal caméra bi de ah di ñu demee nii su may ñëwoon taxal caméra bi rek <laughs> xool leen aadi rek nu mu bañee nga jël caméra maa ngi lay ñëw film topp la foo jëm ma di la film di la merloo léegi vidéo yi man miin su ma ñëwee rek di wax askan wi dëgg ak wax askan wi ñu bàyyi nañ mel ko miin bi nga xam ne <laughs> ma nee tey su ma ñëwee du ma ko <laughs> wax mbiri nangam nangam wala may def nangam su ma ñëwee defaat ko it's so funny <laughs> it's crazy because su ma nee tey du ma ko def sa nangam nangam lay wax wala nangam nangam lay def fu mu jaar rek mu ñëwaat si askan wi seen problème yi ak askan wi nu mel sa mind bi moo ko dee miin you know soo miinee di xalaatee dara wala di waxee dara lu yàgg noonu la da nga ko war a di programme te def day yàgg du caaxaan nga di programme sama yéen du caaxaan so bon maa ngi tànn maa ngi taraay pour koy waxee ma gën koo rafetal you know rafetal is noo lay dama day saaga askan wi day su ma wax ak a def yow xam nañu gën a ñaaw wax bon you know <laughs> it's so funny <laughs> oh my god amit tay xaw ma lan danga xaw ma lan ko kon kon konan kontaan ndax kontaan la non kontaanuma de it's not like dara moom mu ñëwal lu ma kontaan te non man it's not like all the time dama di ñëw sama vidéo di yuuxu askan bi loolu ngeen war a xam ok laajal ñu ma yàgg xam nii laa mel comme because man dama di def vidéo lu si bëri bët bu set ma def vidéo yu know léegi su ma xëyee you know wala dara xew wala nit koon ma wax problème am wala suma mbokk yi am problème yi àdduna walla nangam. you know wala just ma xëy nekk si askan bi di wax seen jikko yi ñu def yu baaxut soo bàyyi foofu ma jël fulla ak fayda su ma koy wax you know duma ko mën nekk di wax di reen yàgg ak kaf moo tax mm-hmm. so moo tax ngay foog ne ndax maa mer te fekk nekku ne maa am life problème wala maa mer wala may bëgg a xaroo wala nangam non <laughs> oh in real life like man nii laa mel dama mun a ree mun a kaf it's just man maa miir su may ñëw ma génn su may ñëw wax lu am fayda may génnee loolu te su ma ko génneewul duma ko mën a wax you understand damay nekk di ruus wala di moytu lu may wax trop te su ma ko moytoo duma ko mën a wax you know parce que askan bi soo ko moytoo sax boo ko waxee ñu mere la kolo ni ñu fiy wax di moytu ni ñu waxee ba tey dañ leen di mere bi ko ñu ngi wax dëgg gis nga tubaab boobu nu mel gis ni kuy waaj a dee ñu gis bu ñu naa ko mu xem ni gën gu sibbutu ni am joo mu sibbutu nag war a wàcc otoom boobu dawe tubaabu bu góor boobu waaye fa ne nii xooloo ma ak aadina këj mel ni fañ ko royal taawam gis naa ko fa réussir subhanallah man fàtte naa ne maa ngi xoor sax tey rek laay waxay I mean, I like you, billahi. <laughs> Zero stress. Thank you. moom xam nga lan sa numéro laa bëgg man ok suma numéro mu ngi Ami Olof Facebook ok guys xam ngeen lu xew Facebook bi soo gisee ngeen gëj maa gis ma post foofu Facebook bi mënu ma post ku xam nu may dimbalee ma dimbale ah tett foofu laa dee gën a jaayee maa xëy benn bés rek Facebook ne ma ngay update sa app bi something like that ma click app bi rek mu ne ma update léegi update boobu xaw ma update la xaw ma lu mu wax daal something like this pour ñu identifier ne yow la léegi nag su ma liggéey ñu naan ma la ko si xaw ma ban device xamuleen ndax loolu lan la xamuleen ndax nit moo ma xag wala loolu lan la ah di ma wax ay random devices ne foofu lañ ma yónnee code bi devices that I don't even know I don't know ma seet suma email gisuma dara xaw ma na dañ ko yónnee message text message bi ko nen numéro boobu noonu xam ne ituma ko ah dinañ jàllee na leen xaw ma waaye waxuñ ma SM SMS xaw ma loolu lañ dee wooyee text message waxuñ ma loolu de dañ ma de wax ne we send you a code you know on the device that you normally log in or something like this te xaw ma loolu what you mean I can help you you can help me ok dimbale ma bind ma. comme I help you take your Facebook ok dimbale ma bind ma suma numéro Facebook mu ngi sa kaw numéro WhatsApp baa sa kaw Facebook ba ah man de jaaxle naa mu ngoog tey rek la nit ñi xàq suma Facebook bi nag ndax ne ni kii ñëw dimbale ma xaw ma kan la su dee ko bon may def ngook moo tax ngeen gëj maa gis ma post foofu noonu konoon ma ñëw def vidéo jaay post. waaw bi ko xam ne nit ñi may nag ami ana sa Facebook vidéo yi ñëw ñëwut Facebook ami xolof la ami xolof ak ami Diop ami Diop Gambian Gambian way of spelling Diop ak ami xolof ah, fas yéene dem de léegi tey ñu xegg waaye des na de ay waay xaw ma lan maka jiye xaw ma lan joor jooy xaw ma lan joo xaw ma Sénégal lu ñu bindee duma koy mën a riir ok don't worry ok salut tey ami ngi Sénégal seen bindi français wala fi duma koy mën a riir tubaab kay ñoo ñu xaajale ndeysaan ñoo ñu rey de ñun Sénégal ak Gambie konoon benn réew la ñu doon am jàmm doo suñ tubaab yi la fi mu ne nii fa ñuy xaree ak Chinese yi yëpp africain yi jóg xànd si foog ne loolu mooy jàmm yi fañ leen war a seetaan ñu xare ndax xam nga Afrique amuñ doole lu xew rek ñu bokk si ndeysaan di lang-lang si gannaaw nit ñi Chinese yeeg naar yi gën a bon yi fuuf ki nga fi ne nii ñu ngay xaaye nit ñi julli fi mu ne nii China ñu ngay rey jullit si ci koor yi di leen xaaye julli jullit rek lañ bañ fi ne ni ñoom bu ñu demee ba ba jël Amérique ñooy gën a soxot Amérique nit ñaa ngi foog ne ñoom fañ baax ñoom suñ jëlee àdduna si ñoom ñooy baax bu ñuy jël àdduna si ratal ko ñoo raw Amérique téeméeri fukki junni yoon naar yi léegi Chinese yi le do you get married soon incha allah a ah, ki wax ne fa may dimbale mu ngi laajte ndax ma xam njëkkatam de ah tey rek laay dee nag yàlla bu yëg ne fa ah, moo bugg a takk far mu gedd ma du ma dimbale bés leen te seddoo guys suma facebook bi dee ma koy man maa jaxle xam nu may def ba defar ko ah waaye ku ma jox ma sa password nangam nangam du ma la ko jox dofuma waaw ku may dimbale na ma wax nu may def ne ma defal lii defal lii ma def ko waaye maanaam jox ma sa password defal lii defal lii xalaat laaj ma ban email adresse moo fa nekk ak ban password ak yooyu du ko def mu càng yëg jërë ngeen jëf bës leen te séedoo rek aadi laay yóbbu mu kot kawaram gi ma vlog waxtaan ak yéen si biti you know ñu waxtaan si biti taalal noonu rek aadi léegi li si def bëriwul léegi man fii nga nekk nii laa bëgg xam Scotland la Angleterre Scotland Angleterre bës leen ko te seddoo ko guys go to YouTube and type how to set up Facebook okay I already have it it's not how to set up Facebook but okay I'll try that I already set it up it's not like setting up as a new person I don't know. It's just they updated their thing or something, and they're asking who I am. Like they want to identify me, and they're telling me we send you code. I don't know on where. You know, this insane place that they're saying they send my code is the problem. You know. But yeah, I'll try that. Thank you. fii lañ ne di dox di dox di dox aadi <laughs> aadi may waaxu de tey <laughs> xawalal na maa xoolaat nag tey mooy foos di ma tàmbali xaat you know waaye sonnaguma nag de te xëdduma maa ne woon danaa jox xëdd suma alam bi ringul ba juróom benni waxtu di waaj a jot fekk xëdd paase na xees moom yow man du may xëdd xëdd sax dama dee naan wonjo lekk banaana naan wonjo muy basaab miinuma tëb rek si nelaw rek lekk loolu miinuma ko ami doomam may xawma lan ah xawma ko de yal na la ko yàlla may waaye xawma loolu su ma ko xamoon maa nga xam saako paketi mbokk yi may xaar mu yónnee leen Gambie ak Sénégal yëpp tout ay jigéen lañ di sëy am seen njaboot te amuñ dara ku ne nga leen bu julli yàlla dina la tiyaaba da nga bokk ak ñoom ñu yaakaar la loolu li ma si am du jeex du xaaj mbokk yoo xam ne ñu ngi leen maye bi nekkee xale mel ni man ñu toog foofu di sonn du jeex du xaaj façon yooyu li ma ci am man ñooñu rek mënu ma leen dimbale ba man Ami Jóob xaw ma lu ma leen dimbalee ñooñu rek waxuma laa di law dimbale keneen kuy taay si vidéo ko xamul nataal mën naa xam gune góor guy tux la toog fële bokkooral di jaay ina seen féeg gune jigéen gu ràncang te mën a fen bon mën naa da ko ne so man su ma xamoon xaalis nekk borom xaalis it ma def ku bind may ma nangam ne ma mel di jaay baax waane pour nit seetaan foog ne maa baax xalaatuma ko nu konoon may dem ba gis nit dimbal physique ma dimbale leen so si internet bi yaay fii baax ku bind nangam ne ah waa bind ma waa génial kaay ma jox ko nangam ni aada moom mu sigut di maye si internet bi tey saaga xaadina si yëpp ndey ak a weer xaadina si yëpp naa fekk anyway <laughs> baax duñ ko fekk waaw duñ ko def si digg nit ñi jox pour nit ñi foog ne ngaa baax dof rek kay foog ne ngaa baax si loolu xamoo loolu ku la gis ngay def baax si biir nit ñi tax mu foog ne ngaa baax foo wéru loolu fay tax mu xam sa jikko ñaata nit def si ront doo ko yëg <clears throat> baax si kaw pour nit ñi gis la mais ni guna guna koy nax nit ñi guna lañ xanaa <laughs> noppaliku leen di ñëw fi ne amee ah, may nangam man su ma xamoon sax du ma ko def man sama mbokki bopp yi rek mënu mën a dimbale ba ba njeex waxuma laa jàmbur jàmbur buy commerce vidéo te mën naa fen xam sax soxlawu fay fen bugg lu yomb soo ko joxee mu tuxee ji ko taay jëndee ji ko këpp nonsense allo aci aadi nañu wax léegi te ñaay ga léegi maa ngi wax xam naa ne maa tax ngay dox naa bul wax bu baax de kër gi mën a I hope ne busy wut nag you know I hope ne busy wut foofu daf dee toog di xaar di xaar may ma xaw ma yaa koy yëg jaayil xorom wala nga jaayi ndox na andale fas ya ca luumu ba te dallu na ma daan def gulu yomb ta kon te mën a fen yéen fu ngeen jëlee njëgi connexion te mën a bind may ma nangam ku xam may ma nangam ta xam ku connect si téléphone te xamee téléphone du mën a connect <laughs> ah te xam te mënta jaay xorom wala mu jaay ndox nandali fas yi sa luumu ba mënu ko baña waaye mën naa am téléphone du mën a connect mën a bind may ma nangam mën a làqu ca gannaaw téléphone ba bañ a def nataalam mën a def loolu yëpp <laughs> loolu loolu jaaykati ndox yi jaay ndox sax amuñ xel moom yëpp goo def sa nataal nit ñi xam la you know nga xam ne téléphone mën a def connexion téléphone ba xam connexion nga mën a bind di yalwaay man nga loolu yëpp waaye mënoo jaay korom wala ga jaay ndox baña dem leen nit ñi leen koy mënal la di jaay feeg baax pour followers si foog ne ñooñu dañ baax su ngeen bindee rek ñu may leen ah waaw bind si ron dinaa la jox eh, ñoo ñoo leen fuyal wala ñoo ñaaw wiitu te gàlli te xam xaalis te duñ dimbale ñu ñoo la dimbale ngeen kay xam fayda xam ngeen dëgg rek daan leen ci comment yi danaa di I love you my dear thank you naar baa nga xaay fa ubbiwul fa ubbiwul xaay ndax fa biisiwul ndax fa ubbiwul fa ubbiwul buy jaay naar ba ubbiwul fii la ubbi na ah on nga dëgg si dema seet ah nañ dem seet ah xam ne nii waaye fa mel ni ak seen xay ubbiwul ah ubbi na kay hello good morning xaw ma morning xaw ma afternoon fii la kenn newul bitigam neen bi lañ fi ba moo taxa mu foog ne ubbi wuñ allo ah naar bi dee fa dee xam fa toxoom fa si butu ah biti waa nga ne yere kenn néew fi allo ah man de konoon moo ci la fi dem poosi sax aadi ah, waaye danaa naar bi néew ma toog kon ñu xaar ah mu naar bi la de xaw ma lu xew ah! bitig bi dafa ko wëcc nii dem ah allo wuntu ba lee nga ubbi nag xaw ma dafa ne am déet <laughs> xanaa ñi toog rek aar ko ba saabu are you posting my kaftan anti Ami it might be you yes yow yaay Adama wala sa kaftan yi maa ngi ko xamee kay ak beneen mbubb ak beneen oora tamit Your color is naturally beautiful. Thank you. Sama color bi de sama haters yi wax ne waa ñaaw moo tax duma leen di faale ko ñoo la gën a xam ne ñaaw moo fa ñoo fukk ak paja ñaaw ñu ne mënuñu maa ñaaw <laughs> man Ami Jobe si gëm sama bopp man faale ma dara ay di ma xaj wala naan ma nga ñaaw ak yow duy wokk si man <laughs> oh my god ah man de jaaxle naa si naar bi la <laughs> mu ngoog buntu bële mu ubbee ko xaw ma ndax la neexam déet bitig bi yëpp ñu wut ko. moo tax ja bi ñëw na léegi man de naar bi la jaaxal na ba tey ñëwut wut palaasam neen bi rek dem na yere ali xallu xallu mu ne yere baña ah lii de kenn mësukoo koo nga tëj bitig bi sax boog wala nga bind kayit yi def ko ci pegg bi ne maa ngi ñëw wala nangam. You are beautiful. Thank you. Hmm? soo mu ngi noonu fii ah aadi naa si lii mu ngi xanaa ñu toog rek ah man naar bi la jaaxle naa mu luume naa léegi tey suma noonu yi jógati naan ngaa ñaaw suma xëyta si da ngeen de wan nga xale faale huma dara sama xarit yaa ngi kóol alhamdulilah kii de xawalum bindi xaw ma lan naa yu def naturel comme yow oray nañu def naturel comme yow nit ñi duñ nangoo def naturel gëmuñ seen bopp moo tax <clears throat> naturel du caaxaan du pour nit ko gëmu boppam <laughs> masala hi yaa ami love you jërëjëf from Gambia jërëjëf Nabou gëm leen seen bopp de surtout yéen ndaw yi mag ñi gëmul seen bopp yi bu ngeen leen toppee rek ngeen xal ko de bu leen kenn dugal ci ay xeesal ak ay ñàkk fayda subhanallah oh god li tax nit ñi di ma bañ rek nu ma mën si tooñ <laughs> su ko defee ñu def ma ennemi di sonn na seen bopp taman fekk fàtte naa sax lu ma waxoon mu waxoon bu <coughs> am xawma laan Kera from Gambia love you sister ka ka Kajira. Oh, I don't know how to pronounce your name correctly, but thank you. Karitu Mam Yai. Amitei Tanga or Wamahose. So smoking. <clears throat> Utanya I know, right? Nyo ko gonna kampanya mayap, right? ñoom ñi buñ ma xas nag xeesal la pare naan ma ngaa ñaaw <laughs> ku xeesal ku ne fa wax boppam ne moom fa ñaaw moo ko wax boppam moo tax muy xeesal mooy ne moom fa ñaaw keneen ku muy wax ñaaw ku ne fay sondal boppam mën ta wax keneen ñaaw mu njëkk wax boppam ñaaw <clears throat> dama bëgg sa but xaw natural bu xeesal waaw non dama xeesal sedd bi moo mu ngi sedd kay but it's not extremely sedd waaye dafa sedd suma loxo sa sax maa ngi koy yëg sedd kay ah naar bi la ñuy wut gune gisuñ ko newu fi ah he's just he's just not here we're waiting I don't know where is he he's not here at all gune góor yi moom la ñuy wut fañ jaaxle sax ñoom newu fi The guy, I don't know where is he. <laughs> gune góor yi may ñëw gisuñ naar ba moom it ñoom it naar bi ba tey ñëwut aale lii rek gune góor yi la fañ bëgg a dog seen kawar gisuñ ko mën de jaaxle naa ci borom palaas bi la I love you jërëjëf te maa bëggoon ngeen gis nu muy côté aadi waaye xaw ma kañ lay ñëw xaaral ma dagg téléphone bi ba saa am guys ma ñëwaat woon leen ko ami année yére yi yére yi waa ok dinaa filmaat tey incha you are African queen black beautiful and natural thank you gars yi fañ may xas ma solee këpp wala ma poose xem naan ma yow it yaa ngi sol këpp ka poose <laughs> sol këpp boo poose xeef di du naturel waaye bële ko gën a bon dindi sa dere bopp bi fa wuuteeg ay këpp boo xam ne nga koy sol bu la neexee dindi xeef yoo xam ne nga koy dindi sa dere bopp bi nga dindi ko sa ñuulaay bi nga di ko bañ loolu moo gën a sérieux te bon foofu junni yoon yéen ko tey waaye ngeen di wut la neen lu ñàkk fayda lu ngeen koy tëkkale <clears throat> ngay këppoo ko sol ko lifin maanaam a kawar moo tax you know léegi-léegi ma këpp tuuti pour ma feel like you know different ba loolu taxul de faalewu ma ko bi bët bu set moon leen suma ndel bi du wut ne man maa suma ñàkk kawar gi xaw ma confident comme yeneen jigéen ñi ni ñuy def déedéet du wut loolu de yeneen jigéen ñi soo leen fayoon ay junni sax duñ génnee seen bopp bu dog bi woon la ko surtout ci caméra comme man xalaatuñ ko loolu mooy ñàkk confident ci kawar waaye man suma kawar gi ñàkk ma ci confident de bët bu set moon leen ko faalewu ma ko sax man suma kawar gi ma ko daan wat ndel ci digg caméra bi ndelu ci digg caméra bi comme guney gaana yéen yooyu du ne man may sol këpp bi ma ñàkk confident comme yéen di ngeen koy waxee di ma ko xasee noonu déedéet xam ngeen loolu bët bu set ma def ndel bopp neen seen kanam faale wu ma suma kawar bu dagg bi sax <coughs> man mi lekkee loxo seen kanam ngeen di ma xas bët bu set faale wu ma loolu sax natural faale wu ma ko so it's not like man xaw ma confident moo tax may sol këpp non faale wu ko sax sa xawma lan soo ko fi xawma lan di sa moo di sa boone xawma lan soo dee saa fii ku xam lu nga hello I'm good thank you Ismaila noo tudd la wala Ismaïla ok guys may ñëw dem Ismaïla tudd foog naa maa ngi dem guys xendu leen jàmm su kii ñëwee danaa ñëwaan fi ne ni xaw ma kañ lay ñëw you know taman dama bëggoon a téye caméra ba fii ñu waxtaan andeen si côté aadi ma woon leen muy côté aadi ngeen gis yëpp waaye ñëwut ba tey ñëwut soo bu ñëwee danaa ñëwaat mën naa bu ñëwee mu ñëwaat ok wala ma def vidéo bu ndaw nii film lu muy def suma pare woon leen ko I don't know because su ma ba dagg caméra bi xam ne naa nekk si mood pour ñëwaat sax maa xoorte you know it's not easy te su fekkee ne may ñëw jaay si kanam dama war a save suma énergie bi pour su may jaay si kanam not easy nga xoor di jaay mbala ma ñëw guddi suma ndogo mu ngi nii naar baa ngi nii di soog a ñëw Hello. What happened? I've been waiting for so long. All right, but you should next time put a note you're coming or something because I was confused. Um, <laughs> All right. Oh. Yeah, I remember him. Yeah. So what's gonna happen then, Adi? Mune mune mune brother mo de mo mune kubak ak hair. So you think we should? You will? You think we should just leave it? You think? Yes, because not good with alcohol. and we've come far waiting for so long. Are you that bad? He just wants simple haircut. It's not, that. It's not about being bad. Every <laughs> Sorry. <laughs> You Asian haircut.

Yeah, I know what you mean. Yeah, it's the same. Like me, I'm good at braiding and dreadlocks and stuff, but I'm not good at cutting. That's why he doesn't want to cut him. All right, I did wala. you know any other barber clothes here? No. Um, hmm? Where is that? Oh, we live, we live, we live in that area and we come all the way. I did not know they do that. Drylosops. Where about? Next to Domino's. But next to Domino's. Ah, xam nga boobu tëdd. Waaw, nañ dem kon. Ah, I never know. Okay, I'll go there then. Because we walk past that shop. Anyway, that post office doesn't work and I need to post this. So it's still good that I'm here. I'll just go and post. All right, thank you guys. That's fine. I need to post anyway.

Mm -hmm. Which are going to? Um, that's the Italy one. Italy one. Mm -hmm. That cost you 12 pounds 15 pence. Huh? 12 pounds and 15 pence. That's fine. Awesome. You need to fill one of these in as well. Okay. Oh, boobu mooy bu adresse bi ah di bindal ma ko fële ma jox la pen bi suñu adresse bi rek nga fay def. te nga def lu fa nekk lan la taxawal ah, ma ah. suma tur nga koy def koy def adresse bi yëpp you know my son will do it he's faster than me for mm-hmm. lu fa nekk nga def African dress rek you this one too no direito de otras aprenden y como a mí So parang def the rest. sorry, my hand, my hand was on it. Sorry. Um, Germany. Mm-hmm. shiny at So, oh my God, no, the pen not working. Try, try mm-hmm. And this one, add the bindle feeder. so. Ah, they defal Edinburgh. I'll do this one. Burai address, but I defal Edinburgh. So Edinburgh. here. Mm. And the value, how much is the box? I put it there, it's there. Oh, you put it down in the box? Mm -hmm. dance music because I'm horny. I'm fasting. <laughs> Oh, I shouldn't be singing. Honestly. Minute to gadu kalpe legi. Twenty-two pound and eighty Thank you. hold on to your receipt. Yes, sir. Thank you Is that for both, yeah? That's for Right, thank you. yéen sax mu leen a fàtte woon ne yéen a ngi on tey rek lay dee suma nijaay ak mooy seetaan bi boo nekkee bi rek waxal ma dagg téléphone bi ñu waxtaan yaa ma ëppoon njëriñ nit ñi may vlogal nii ma leen di vlogare fàttali leen ñu jënd yére ma poos ko ok guys de leen jënd su ngeen di jënd ma poos ko ngeen jot si ok du yére rek lu nekk lay jaay mboor mboor tenkiliba buy sungu fi muumi nebe daay fres fu am sungu fi mbuum bu jógee Gambie lu ne rek man nemet nemeti puusal leen ko ngeen jot si ami xolof tiisaadi sax ñëw na naa leen ko woon ngeen jënd si waaye xam nga luy problème bi tiisaadi dañ ndaw waaw góor ñi nga xam ne dañ selem ñoom lay xem waaye góor ñi mel ni Ami Jóob xam yaram ni Ami Jóob maa si Macky Sall Adama du leen xem góor ñi selem ñi lay xem parce que XL bi XL yi Gambie la fa tuuti bokkut a XL yi you know Amérique wala UK amin ñaari ex yi fañ tuuti nekkul ñaari ex yu rëy de uh-huh. so man suma ko solee daf ma de du dee yolom duy bàyyandiku si man te man tisaat bu bàyyandiku laa dee bugg so loolu rek laa leen war wax ngeen xam ko boo tisaat yi rafet la xam na ay ami xolof lii Sénégal ak Gambie am na beneen boo xam ne Sénégal laa ko def maanaam ñaari dëkk yi together and stuff like you see et puis xam na xam na yoo xam ne beneen bi dafa wax Sonko rek xam beneen bi wax Macky Sall rek pour fan si Sonko yeeg Macky ko bugg a jënd ah beneen bi gëm sa bopp wala sama bopp laa gëm beneen bi yàlla laa gëm si si angale I believe in Allah on the tree sax xam na you need three eggs I don't have that in this one no why you need three eggs are you Adama Barrow are you just a big guy like in a healthy way oh yu Adama Barrow because of the tummy I am on break na xaaral ma dagg téléphone bi guys suma nijaay ngi on break xendu leen jàmm bye <laughs> bye su ma demee aari fuñ koy dogee naa ko film film bu ndaw suma paree postal leen fuñ koy dogee gi ana koy dogee fuñ gi naa ko film film bu ndaw postal leen ko dégg ngeen gis haircut bu mu xam su fekkee dog nañ ko fële ooraay oh, waxuma leen lu naar bi doon wax soo lu naar bi doon wax mu ne pour yéen ñi déggul xàngale mu ne moom man takkoot kawari nit ku ñuul fii ma dëkk nii si Angleterre bëriwul nit ku ñuul melul ni London daggkati kawar yu bëri fii mënuñ dagg kawari ku ñuul ngay dem ba foofu ñu la du dagg kawari nit ku ñuul mënuñ mm-hmm. ko so soo léegi waaye wax na ne naa dem suma boori kër foofu noonu ñu ne noonu ñooñu dañ ko def gune góor yooyu ñu ne ñooñu dañ ko def so maa ngi dem foofu noonu seet ok ok gars yi ba si kanam bye see you later rendu leen jàmm ku bugg a jënd rek na dem si kaw YouTube link baa ngi fa nga click ko da gis yëre yi yëre yaa ngi fa ok waaw vidéo bi moo mujjee post du yére waaye beneen bi ma post balaa boobu yëre la mooy bi ma post bërki démb la xaw ma waa dem leen ngeen ngeen wax ma lu ngeen bugg xam na si yoo xam ne jar ne dinaa leen waxal su fekkee bu jar ngeen bugg su bu jarul ngeen bugg ngeen jël ko ok. ok ba si kanam xëy na leen jàmm bye.